sëñ bi bul wax loolu. dama laaj rek xam nga xam nga déedéet bul ne bul ne déedéet bul ne gaaw gaawtu ndaw yow koo xam ne policier bay ñëw di la jàpp muy division des investigations criminelles ñoom ñi ngi kon continuer seen liggéey yëguñu ne sax dañ leen jox ndigal ne jàppale te Ibrahima Sall ma ñuy jàpp moo leen njëkk yëg ne leen ñi ngi koy waaj jàpp te kooku bañ ñëwee di ko jàpp fekkuñu ko fa ay fan fekk na dem naa fekk yëg naa ay fan ne nguur gi ñi ngi samay tànk si bu wér wóor ba dem na donc kon kañ man le temps dafa ma jox daf ma jox raison bu doon dama daw te alkaati ñëwul sama kër jàppuñu sama pap wóoruñu sama doom ñu dajji sama néeg kon kañ loolu day day day grave kon dem bi ma gàddaay temps bi jox na ma dëgg ndax après seen doxalin atte na ma ak askanu Sénégal te loolu yemuñu foofu ñoom li ñu bëggoon it. Hmm. mooy maanaam jamono yooyu yàlla dimbali woon na ma ma nekkoon ci chroniqueur yi nga xam ne Sénégal ñoom la ñu gënoon leen bàyyee xel ay junni junni doomu aadama ci àdduna di ñu seetaan ñuy wax loo xam ne ah ci xam-xam lañ koy teg ci dëgg lañ koy teg ci ngëm ngëm lañ koy teg ñoom it way alors peut-être dañuy am quelques soucis ci réseau bi c'est normal fa mu nekk xaw naa sori depuis sànq ba léegi des fois dañuy jànkonteel jafe-jafe ci wàll wi euh, Ibrahima ndax yaa ngi may teewlu waaw bu fekkee waa régie mën nañu xoolal bu baax Ibrahima su ko defee ñu mën a gën a wéyal euh, waxtaan bi di fàttali ni moo jiite Azret Ibrahima sàll nekk jamono ji foofee ca Mali foofu sax lañuy ñuy dégganteeg moom ginnaaw ba mu dawee làqu foofu jàpp ni euh, réew mi kilifa yi ñoo ci euh, li nga xamante ni euh, teguwul euh, ci dëgg ngir ci li mu wax sortem bu mujj fii ci sans limite ci bi muy wax naan ay négociation ñoo am ci suuf ngir luy bàyyi Ousmane Sonko ci jamono bi mu nekkee ci kaso beeg ca aju xëy na loolu la jàpp ni mooy justifier lu ni mel Ibrahima bu fekkee mu ngi ci ligne bi ñu wéyal waxtaan wi Ibrahima. waaw maa ngi leen di maa ngi leen di maa ngi leen di maa ngi leen di dégg bu baax a baax. voilà mu ngoog léegoo léegi. xam nga perte réseau c'est normal xam nga xam nga maa ngi doon wax ne yaa ngi wax lan moo sabab lan moo war a. waay waay leneen li mooy leneen li mooy mbirum position bi ma jël ci mbirum Ousmane Sonko neexul woon waa nguur gi parce que. Ah commencé woon nañ commencé woon nañ doon kalaateel jili di di gindi yi di def ay enquête di leeral mbir di leen wax loo xam ne. ku ñime dëgg di ko dégg di nga xam ne ñii di chronique nii dañuy wax dëgg bu leer nañ la. te la nga wax loolu yëpp wér na am nga ci ay firnde yoo xam bu ñu la woowoon mën nga ko joxe. waaw man fukki at fukki at suñu borom dimbali dama maa ngi def chronique ci télé ak ci rajo kenn mësul gis ku ma baar wala koo xam ne da jël samay kàddu donte nag léeg-léeg njuumte am ci liggéey bu njuumte amee. Hmm. dañuy nangu ne dañuy juum mais fii njuumte amu fi man li ma wax noonu maanaam problème bi dëgg dëgg dëgg xam nga mooy lan. mooy mooy position bi ma jël défendre le détenu Ousmane Sonko en tant que détenu dénoncé ne dañ ay droit am dañu ko bofwe dénoncé ne dañu violé décret trois cent soixante deux bu quatre mai deux mille un relatif aux procédures d'exécution et d'aménagement des peines et des sanctions pénales wax ne Ousmane Sonko détenu spécial la dañ ko créel ay jour spécial pour jàpp hmm. fan ngeen mës gis si ban tribunal ab procureur ñëw samedi di liggéey ab juge d'instruction ñëw a gis loolu jàpp ñi ëppal ñu jàpp ne dañ ci ëppal yemoo rek ci taxawaay boobu noonu ci ne détenu la rek léegoo léegi am ñu jàpp ni da nga xaabaaba ba mel ni danga am beneen posture beneen taxawaay laaj bi sax ñëwoon na. waaw xam nga xam nga xam nga euh, xam nga yàlla xam nga lislaam sëñ bi dama ne sëñ bi dama ne yàlla bëggul naa feex hmm. naa feex moom du dem àjjana yàlla bëggu ko c'est-à-dire nit boo boo boo dévoué ci benn cause ngay défendre dara da nga ciy dem en toute responsabilité benn man je dirige une association buy dimbali ay prisonniers Sénégal loolu mooy sama sama liggéey de. du bokkuma passif amuma carte membre passif. mais c' important ma leeral ne lan moo tax yéen bi may défendre xalifa Sall yéen waxoo leen dara lan moo tax bi may défendre Karim Wade kenn waxul dara lan moo tax bi ma défendre Bougazelli Bougazelli maa tax mu génn ci kaso bi. Bougazelli mm. bi ñu jàppee woon ay faux billets. le pourquoi nit ñi waxuñu dara Sitor Ndour jàppale naa ko il même appelé pour me remercier le pourquoi nit ñi waxuñu dara léegi le pourquoi. man ma taxaw défendre Ousmane Sonko problème bëgg am nguur gi bëgg jël loolu def ko problème man logique laay wax ak yow. Hmm. parce que Ousmane Sonko nee naa la bu élection doon suba bu élection doon demee nii bu élection doon demee ñu ne ma Ibrahima Sall koy woteel. Hmm. man Ousmane Sonko laay wotel pour la bonne et simple raison que c'est un détenu ou c'est un ancien détenu. donc man sama soutien détenu laa koy apporter wala ancien détenu te Ousmane Sonko actuellement il est détenu. oui mais soutien boobu ça n'a rien à voir ak rek bu defal ndàkk rek bu génnee de prison dafay am statut ancien détenu donc man li justifier sama soutien ci jàppale bi may jàppale Ousmane Sonko assumer nag samay responsabilité quand soit le prix à payer tey ñu ngi nii di payer les conséquence te suñu réew moo ñu ko jaral. Hmm. ñun bi ñuy toog foofu di chronique di wax xamoon nañ ne mbir bi amoon na ay risques. qui peuvent être fatales nattoon nañ ko xamoon nañ ko mais suñu réew moo ñu jaral lool maanaam gis nga mbirum Ousmane Sonko. képp hmm. ku si noppi naa fex nga. ku si war a wax te waxoo si complice nga te ñëpp xam nañu ne li ñu ko teg c'est injuste acharnement la jaay doole la position boobu mu jël ci défendre ko ci jàpp ne ay droit am dañu ko bafoué jàpp ne mën na nekk candidat jàpp ne éligible na jàpp ne ministre bi li muy wax dëgg lalu ko. loolu rek moo jant bi loolu rek. sa position yooyu ak taxawaay boobu rek. mais du leneen mais man li ma man man li ma wax nit bokk na affaire wax lu gën a garaaw loolu te kenn jàpp waaw wala déet dama ne nit bokk na ab Ahmed Suzanne Camara invité nañ ko benn benn benn site internet site boobu ñu ko invité lam fa wax moo gën a garaaw te kenn na jàpp ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ah. ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaw jàpp jàpp jàpp jàpp nañ am na Suzanne Camara li mu wax lu ko gën a grave kan la ba li wax jëmale ko ci xeetu olof jëmale ko ci xeetu olof lan moo a grave dama ne sëñ bi sëñ bi dama ne nangul dëgg rek ñooñu li ñu def moo gën a garaaw man li ma wax am na ñu bokk affaire ñoo xam ne tey jii bu buñ ne woon nañ rendi Ousmane Sonko dara du leen ci fekk. oui mais Ibrahima dara leen ci waaw man awma lu may nangoog lu may bañ fi ma toog nii mais leneen li ma la bëgg laaj mooy ci biir loolu ak association bi nga jiite ndax jotoon nga xabaar ne am na ñeneen ñu jàpp nii dañ bokk ci association bi doon la indil ay këyit ngir wan nii taxawaay bi nga amee jiite ASRED ànduñu ci. Eh, te li ñu bëggoon mooy dem ci assemblée générale xool nañ ko renouveler ndax loolu jot nga ci maanaam ñi a ñoom Cheikh Gadiaga ak ña mu àndal. waaw xam nga xam nga xam nga Cheikh Mbacke Gadiaga moom moom moom moom moom sama waay la sama wóolare. oui mais xam nga ba ñuy def assemblée générale Cheikh Mbacke Gadiaga ñëwul. Cheikh Mbacke Gadiaga ba mësul teew si benn activité ASRED kenn mësu ko gis si dara lu ASRED organisé. Hmm. Cheikh Mbacke Gadiaga il est dans son rôle moom day soutenir Adji Sarr nguur la àndal il dans son rôle association bi ma jiite dafa am taarix am histoire am lu taxoon ma taxawal ko ci lu metti loo xam ne daf ma daloon biir réewu Sénégal mooy tegoon nañ ma loxo juróom benn weer deli rësal yoon setal na ma ba ma set huit ñu fàtte ma kaso Rebeuss ba ma am deux ans dix-huit man ak Cheikh Mbacke ñu ñoo nekkoon biir prison Rebeuss. Cheikh Mbacke Gadiaga bi mu libéré taxawalul association de moroomam taxawalu ko man maa génn taxawal ak association pour dimbali ñu caayu féete ginnaaw man maay nit bi njëkk a wër fanweeri kaso ak juróom-ñaar yi man maa man rek ministre de la justice def ko man rek man maay seul nit seul nit bi njëkk a prison Sénégal yëpp te kenn joxuma dërëm maanaam man défier naa la fii si sa émission muy Cheikh Mbacke Gadiaga di keneen ku mu mën a doon képp koo xam ne mës nga yëkkati ñaar laa ñaar dërëm ne maa ko jox Ibrahima Sall pour mu yóbbul ko prisonnier yóbbu ko mu lekk ko na nga génne preuve nga brandir ko ci média yi du financement état du bonne volonté du kenn ci réew mi donc kon man am man sama réew daf ma amel njukkal waxuma ko pour tagg sam bopp Papa Ndiaye bu ñoom ino kan moo ko génn si kaso bi détenu bi ñuy wax Bakary Cissé nekk camp pénal kan moo ko takkal jabar ñaata détenu laa takkal jabar utal leen liggéey jàppale leen man awma salaire société civile laa bokk ndax Cheikh Mbacke Gadiaga boobu dafa ñëw mës a fekkee benn réunion ASRED ndax Cheikh Mbacke Gadiaga dafa mës a contribuer financièrement ASRED te Cheikh gaje Gadiaga boobu saa bu mësaan nekk kaso dinaa toog balance défendre ko ba après dama si dégg sax lu ma naqare ba bi mu mujjee def conférence de presse am naa la envoyé vidéo bi daf mu invité benn hôtel keroog dix mille francs la ma jox paas ma ñëw ci hôtel bi défendre ko jàppale ko jàppale ko ci ci wàllum politique am que un ancien détenu ne fi day takk Adji Sarr maa njëkk toog ci télé ma ne ancien détenu bu mu mën a doon ak loo mën a dugg dama lay jàppale ba mu ma woowee téléphone ne ma dama bëgg nga jàppale ma dama bëgg a takk Adji Sarr dama nekk ancien détenu nga man saa boo ñëwee dama lay jàppale en tant que ancien détenu donte d'accord ma ak Adji Sarr dama koy jàppale en tant que donc même position boobu laa am tey si leader bi ñuy wax Ousmane Sonko man asret fukki at boo nee may génn réew mi dem ba ca Mali nooy jàppalee détenu yi finalement xeex bi moom nu muy demee waa xaaral rek sëñ bi da ma laaj laaj bu am si solo man asret def naa ci fukki at dama mës a wax ñi ma bokkal kuréel gii di asret ma ne leen bés bu amee nit koo xam ne ci ay at wala ab diir bu ndaw bëgg nga man jël ndombal tànk yi ma yooyu man fukki at awma vie de famille man fukki at noppalakuma fukki at maa ngi défendre cause boo xam ne lu ne dégg naa ko ci stigmatisation ci rejet ci wax ju ñaaw ma gëm ko boobu fan sénégal Sénégalais yi nekkoon man li ma Macky Sall teg nii si lu metti man Ibrahima Sall man mériterait pourtant Macky Sall moom bind ma ñetti lettre félicité ma dinaa la ko envoyé nga wan ko ñii di seetaan ñu gis ko jox nañ ma ay raayo ci li may ci li may liggéey li may liggéey. réew mi moo tax ma lay laaj finalement oui. finalement xaaral de may dem waaw. non sëñ yow li nga yow danga nga yow yow da laaj laaj bu ama ama am am solo nga laaj maanaam danga nga ne ay ay Cheikh Mbacke Gadiaga man Cheikh Mbacke Gadiaga dama am ci moom respect Cheikh Mbacke Gadiaga sax du ma ko sax tontu di sori sax di ko gën a may bës far moom sama doomu ndey la sama waay la loolu loolu nangu naa moom moom moom moom dafa nopp aji Sarr man dinaa ko jàpp loolu garaaw moom moo état ñoo ànd loolu garaawul moom affaire am baax na mi ngi ànd ak état assumé na jàppale bi muy jàppale aji Sarr na ma nangul man jàppale bi may jàppale Ousmane Sonko en tant que détenu assumé ko te nëbbatuwuma ci reculer wu ci centimètre. d'accord qu'en soit le prix à payer je vais continuer à apporter tout mon soutien à monsieur Ousmane d'accord mais finalement noo koy defee laa wax bu dee ni fi mu ne nii nekkoo ci réew mi te dem nga gàddaay nga xamuñu kañ ngay ah. ñëwaat. naka yow nan nga yow nan nga déedéet déedéet déedéet loolu c'est pas la bonne question nan nga def boo wooma maa ngi nii Mali yow nan nga def boo wooma yow yow nan nga def yow nan nga def boo wooma kon à part de Mali mun nga toog di assister détenu yi dina taxaw yow kañ yow tontu yow yow tontu nga sa bopp yow dang ne man nan laay nekkee Mali di dimbali prisonniers yow kañ en tant que journaliste yow nan nga def ba ñu entrer en contact te li ñuy wax nii sa objectif mooy nit ñi dégg ko te dinañ ko dégg man ne man bi ma ñëw bu ma fii Mali laa gën a mën a dimbali hmm. laa gën a mën a liggéey pour assurer. laa gën a mën a continuer porter défense Ousmane Sonko apporter que sama soutien. qu'en soit le prix à payer. Hmm. te yaa ngi fa bakkan wala ko waa xam nga xam nga ki gàddaay moom gàddaay na rek maa ngi profité si occasion bi di remercier le peuple malien. Hmm. seen président de la république un grand panafricain un président boo xam ne discours am discours bu ma séduire la nit koo xam ne nit ku baax la nit ku gëm Afrique nit ku bëgg Mali te maliens yi dañ ñu ak à bras ouverts tey boo ñëwee Mali gi hmm. da ngay defe ne sax Ousmane Sonko malien la man dama ñëw Mali dama amaat beneen yéen a fi ngeen wala waa non dama ñëwaat Mali amaat beneen gis-gis sax si dimension wu nit ki ñuy wax Ousmane Sonko maanaam Ousmane Sonko est tellement bien aimé par les Maliens man loolu ça commence à ma à ma à ma à partout les gens ne parlent que de Ousmane Sonko raison pour laquelle état bëgg ko éliminer pour des raisons purement politiques jaay ko doole xañ ko ay axam ak ay yelleef ça c'est injuste sëñ bi hmm. lu dul dëgg nañ taxaw ñu ne lii du dëgg jeex na. oui ma ne ndax yaa maître Ngagne Demba yéen a bokk fa ngeen ne am déet. ah maître Ngagne Demba kañ mi ngi mi ngi mi ngi Mali gi mais quant à ñoo nekk nekkuñu moom loolu moom mënuma si sore loolu moom ça reste secret. Hmm. mais man daal man li ma mën a wax ba léegi yaa ngi am ay nouvelles ci réew mi nooy xoolee le jeu politique Benno am nañu tànneef ah, finalement ah, mais mais Sonko dakkal na grève am de la faim. waa ñun ñun ñun ay citoyens sénégalais lañ yoo xam ne dañu bëgg suñu réew gëm suñu réew donc fu ñu mën a nekk am nañ connexion internet. dañuy dugg dañu télécharger ay application dañuy dañuy suivre actualité bi à temps réel hmm. jàng nañ sax mais ki nga xam ne moo di seen sans limite foofu xëy na nit ñi des fois dañuy fàtte mais sans limite foofu toogoon naa fa yaakaar naa ne loolu moo indi woon sama coow ak Thierno sax dama bëgg nga seetaanaan vidéo boobu waxoon naa foofu ne du Ba mooy mooy choix wu kan mooy choix wu doomu Macky Sall Amadou Ba foofu la ma cerno boobu foofu la ma attaqué woon dama lay invité nga seetaanaat vidéo boobu pour wàll nit li ngay wax da nga koy teg ci xam-xam bu wóor xam nga loolu laa waxoon foofu sans limit mu ne ma kat moo la ko wax hmm. dama bëgg nga nga dagg nga dagg partie vidéo nga dugalal ko sénégalais kon ñun nous sommes bien informés Amadou Ba dafa bénéficier soutien wu doomu Macky Sall bi ñuy wax Amadou Sall hmm. bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax te Amadou te Ba euh, booy booy booy booy xool aussi dafa nekk choix boo xam ne ni choix wu ñàkk pexe la. Macky Sall amul woon beneen choix. waaw Macky amul woon beneen choix. pour lu dul tànn Amadou Ba. parce que le ta le pourquoi moo lool c'est-à-dire ñi fa nekk ñu bu dee wàllu nickel dafa mel ni moom moo leen gën a nickel. moo leen gën a calme moo leen gën a yaru tey booy xool Amadou Ba booy xool nit la koo xam ne am na benn respect ci opposant bi nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko lu mbir bi metti metti mosoo dégg Amadou Ba. yëkkati kàddu gu ñaaw wala bu ñaga certes dina ko attaqué nii rek cokkaas ko politiquement mais du ko dénigré du du du xotti war moom du yëkki yenn kàdda yi di ko di ko di ko di ko jëmale si moom te nee naa la